monsieur Faye ñëw na quand même. d'accord dinaa ko woo léegi. maa ngi bëgg a dee ak tàngaay fii nii. waaw. monsieur Ba na nga def. metti na. naa da nga loolu moo tax nag ma indil la verre bi nga xamante ni moo gën ci verre yi. verre bi nga xamante ni. soo ko defee sa bâtiment du mos a tànk. te it day yaxanal énergie bi nga xamante ni moo jëm sa climatiseur verre baa ngi nii. voilà. nag moo la sonal. verre bii moom moo sama bâtiment bi yëpp. tollu day lëndëm dafay tàng. te mhm. am nañ climatisation mais ça ne va doxul. oui non léegi lu ci pexe. dem Mbaye frère bi nekk HLM. nañ dem. établissement Mbaye frère soxlaa wutul génn réew mi ci wuti matériel lépp nga fa HLM 1 rue 13 avenue Cheikh Amadou Bamba Dakar téléphone 33 di taalibeb Cheikh Issa Diène. waaye juróom bu jigéen liggéeyal liggéeyal Cheikh sëñ Baara Jenn mu Cheikh Issa ba mu am ngërëmam kon tey Mbaye Guèye bu taxawee sëñ Mountakha war a ñëw fii ci entreprise am bi di EMG automobile muy nit ku baax yàlla dogal moom moo liggéey kër sëñ Touba gi nekk Colobane ki sëñ Mountakha bu ñëwee war faa dal moom moo ko liggéey ba mu toll fi mu toll amaane nag sëñ bay Guèye ku ko dégg te xamoo ko dina la jaaxal waaye man mii di wax xam naa ko xam naa mooy kan waaye ndeyam de am na ngërëma sëñ Baara Jenn mm-hmm. te sëñ Baara Jenn sëñ Touba moo ne ko koo gërëm war na naa ne ma war na ne maa ko gërëm ma ne ko sëñ Baara Jenn waroon naa la koo gërëmati mel ni ma ko gërëm te nga waajuram bu jigéen am na ngërëma sëñ Baara Jenn kon nag moom lañ dalal fii tey bëgg am ci moom ay kàddu seede yoo xamante ni ci dikkug sëñ Muntaxa gi ak teewaay gi yëpp maanaam rek kon moo mbir yëpp ànd teewlu ko sëñ Mbaye Gueye EMC bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala wa barakaatuhu eh, sant ñëpp eh, ñu fi ñëw teer teeru lenu sëñ bi ci jataay bi ci EMG bala muy continuer dem fi muy dem Euh, ci bi ñu baaxee ne dina fi taxaw ñaan fi bala muy dem mu nekk ci ñun nag mbég mu rëy rëy rëy waaye dama bëgg xam ni nit ñi xam ni fi mu toll nii fii ba ajjuma wala semaine bi ba semaine bi jeex fête nationale julliti la fête nationale julliti euh, muy feet bi nga xam ni ci la ñuy tijji jumaa ji nga xam mooy garaatu Serigne Touba ci Ndakaaru yaakaar naa ni ñun murit yi jàng yëpp xam nañu ñetti guddi ndakaaro yi sëñ tubaaya ak dég yaag jaas yaag tàngaay ak wettituwa juróom-ñaari guddi sëñ Muntaxa yii ci ndakaaru dina ko fay kon nag mu nekk suñu feet ñun septembre la woon septembre la encore dara du hasard ñun nag li ñuy bëgg mooy liñ doon def ak di ko wër di yëpp sëñ Muntaxa bëgg rek su bëggee rek sëñ Basiiru su bëggee rek sëriñ Tuubaa bëgg su bëggee rek sallallahu alayhi wa sallam bég yàlla suñu aaju yëpp faju jërëjëf ñuy ñaan nag taalibe yëpp feet buñ ko amee noo koy defar kenn ku ne ci nga bokk kenn ku ne ci nga bokk loo yaakaar ni lii soo ko defee mu yàq bul werante bu kenn werante bu kenn mer du ñu am lu toll nii jumaa ji gën a rëy ci Afrique ñu jagale ko Serigne tuuba ci capitale sëñ sëriñ Touba jóge fi ñëw def ak ñun juróom-ñaari fan ubbi jumaa ji diggante bi ku ci mer sax doo murit na ñëpp an jàmm ñëpp yaru ñëpp topp ci di ci kanamam ba mu kontaan suñu aajo faju ñun ñëpp. jërëjëf sëñ Mbaye laa gëm waaw waaw yàlla sa yàlla sa ko defal ko taalibe yëpp ngeen